asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp euh, di leen ziar bu baax euh, tey jii ñoo ngi nii fii ci Touba Loyène mu mel ni jamono ci ginnaaw daje woon na fi am lu ñu waxtaan ak ci waa C50 ci njiital Ablaye Sylla ak ndawam li Baye Saliou fii ci Touba Loyène ñu daje woon ay fan ci ginnaaw nag tënku ñu mbooloo mi yëpp ñu am lu ñu waxante woon ñu seeni seen i yitte ak seen bëgg-bëgg. te loolu tamit dëppoo maanaam euh, lañ wax te mooy ñu jàppale leen seen gox ak goxaan yi ci defaral leen mu mel ne ba ñoom seen proposition yi proposition yëpp dégg nañ ko mu jëmoon ci lu mel ni waa defar koñ bi koñ yi yoon yoon yi euh, leer waaye tamit taal leen làmp yi ba mu sëkk mel ne tey jii tamit fi may waxee yow nii ci loolu lañ nekk. ñu ngi nii ñëw tey ngir taal lamp yi boo xoolee lamp yi tey yu bëree bëri taal nañ ko mi mi ngi tàkk loolu lépp nag mbaaxu Abdoulaye Sylla tey ko defee fii bu ñu ñëpp fii incha allah def nañ ko Sine Galass dañuy jàll ba ay Guédé Sora Daaru Xudoos fépp rek fépp foo xam ne ni maanaam gis nañ ne war naa a leer rek dañ ko incha allah rabbi euh, Abdoulaye nag moom ñun pare nañ jàppoon nañ bokkoon nañ ngir ànd ak moom bëgg ngir jàppale ko ci li muy yóotu te mooy président SEL 2024 incha allah rabbi yàlla ma ko jox te mën na koo jox te rafet na ci njot wax de ndax jëf na jëf na tax ñu jox ko tey comme que moom dane woon bay sa yow tànk yow tànk moo ngi ni fi la tàmbali ndaw ñëpp alhamdulilah koñ bi ñëpp tey sant nañ baax gis nañ seen ñun nag ñun mobilisé wu nañ yor suñu jumtukaay yu mat sëkk di ñaan incha allah rabbi àgg ci 2024 incha allah rabbi bu ñu demee jàmm ñun liñ koy sàkku ci moom rek jumtukaay yoo xam ne mooy yombal dem gi rek la xam ne mooy tax nit jot ci la mbëgg ñooyee moom tax incha allah dañ ko jox muy waa waa fii ci Touba lépp ak waa Looyeen gi dëkk yëpp incha allah na na kaar doy lépp mat sëkk ñu àndandoo fu ma doon dëkk bi rek moo xam biir dëkk bi dëkk bi fu mën a rek danañ dem incha allah bi tax ànd ak moom maam jox ko suñuy carte ñaan yàlla mu jëla ko waaw mu jëla ko jël ndax mooy suñu njariñ ndax wax dëgg yàlla tàmbalee gu dig ñu defal ñu kon nag bu ñu ku la di reer jox la ndékki war ngaa Sëriñ Tuubaa la joxaat incha allah kon ñaan saa borom yàlla mu àggalañ ci la tawfeex ji kon bi macha allah te lamp foo tuddee mi leer nañ te gëñ fi loolu nag wax dëgg yàlla lamp yi lu fi lëndëmoon na guddi da ngay teg yeneen mbedd ngir dem waaye tey àlla si la tey macha allah taalal nañu lamp koñ bi leer nañ te yeneen activité bi day ñëwaat incha allah rabbi kon ñu ngi koy ko gërëm ñaan yàlla mu taxawu ko te sàmm ko wax yàlla dëkk bi la jëfal na waa dëkk bi nga xamante ne mu ngeen taxaw fii tey ak jëf ju rafet yi nga xam ne moom ngeen di jëfal tey muy loon yàgg bëgg lool nag ndax wax dëgg yàlla koñ bi moom lëndëm na lool. ginnaaw nag yàlla at na yéen ñëw ngeen ak seen yéene dikk defal nu lii ngeen di defal du man lu may gërëm leen sant leen. ci kaw li ngeen wax nag ci wàll ak àndandoo bi ak dimbalante ak jàppalante bi kooku moom bu ko defee suñu bopp lañ ko defal ndaxte doo si la bu ñëwee fii tay taxaw ci koñ bi bëgg fi dara. nun lan man mooy ne ci ginnaawam rek li nga xaye jàll na nag nu xam ne loolu jàll na nun ñëpp nu ànd sàmm li ci kanam li ci kanam moo am njariñ ndax si la du gan ci koñ bi yaakaar naa nun ñi ñëpp xam nañ ko bi mu nekkee fii di liggéey ci hôpital bi ba këram ba reete reete ak fu mu def clinique nun ñëpp ku am sa malaat ci moom daa yóbbu ku am gone gu juli pengu ci moom ko daa yóbbu ginnaaw ko nag léegi loolu dëkkandoo la ah kuy olof yaa ne kuy wàll yaa nag sa kër daa dëggut na xam sa na xam ne nun ñii bun ànd ak moom ay baayam lanu bun àndut ak moom it ay baayam lanu te ànd ak moom lañ bëgg kon nag nañ leen góorgóorlu te ànd sàmmante àndandoo xam li ñuy def xam fi ñu jëm xam li ñu jublu xam li ñu bëgg na ñëpp taxaw ko am carte mu andi ay kar ngeen dem wote ji ci jàmm ak salaam ba yàlla may nu ndam. li ngeen bi ngeen wooyee keroog ci daara ji rek li ngeen li ngeen waxan ngeen daal di koy jëf. ndax yéen keroog biñ biñ ñëwee si daara ji la Baye Sall wax ñu ne ko ñun ku ñu sëkkal koñ bi lañ bëgg defaral sunuy làmp wutal jigéen ñi luñ liggéeyee loola Baye Sall da see daal di taxaw daat koy def te ñun lii ngi lii lii fi Ablaye si la def ñun musunoo musunoo am ku nu ko defal musunoo am ku nu ko defal te dañ fi daan dawal aw nit fu ne ñu ñu dinu ñun yóbbu nañ nu fi Daaru naan yóbbu nañu fi gaaraasu Dakar yóbbu nu fi ba Kellel waaye lii ablaay daa di wax daa di koy jëfe si moom laa ko gisee ñun sun xel dal na ñun sun xel dal na sun yaakaar it gën na gën nañ koo yaakaar ndax lépp lim li nga xamante ne toog nañ wax ko Baye Sall ne su ma yeggee dinaa ko wax Ablaye ba mu yeggee wax ko ko Ablaye jëfee na ko te lii mu day lii lii mu wax ak ñun daal di koy def am nañu fi jaar te bañ ko waxee dan na ko dan noo nax xam nga keroog wax naa leen ko ci biiri wax ne leen ñun lu mel nii yàgg nañ nu koo woo keroog ba jey na ba Sarr ñëwee wax ma ko dama ne ko man duma ma ñëw ndax magam yàllaam jëmm laa te yàgg te lii yàgg naa see daw te musuma see gis bunt musuma see am yaakaar yéen nag ah, Baye Sall nag woonu ñu tase fa daaray Cheikh Fallou ñu wax ko liñ bëgg lañ bëgg mu daat ci taxaw defal na ko man li si samay xalaat li nga xam ne moom moom la bëgg ñun dinañ ci taxaw baye boo seen xel dal ndax ndax ndax la ma leen doon wax rek la leen woon rek ñun ku naxut waroonu duñ la nax duñ la war te Ablaye Sylla dan koo jur jur Baye Sall Baye Sall juddoo ci koñ bi ànd ak sunuy gone maase ak ñoom kon xam nga ne ñuy magi yàlla jëmm muy sun doom rus nañoo wax ci moom lu dul dañ Baye Sall it keroog nee naa ko yow mun naa mën a ko lii nga nu wax nanga fexe ba jëfe ko ba bu ëllëgee boo tasee ak ñun doo rus ndax ñooy sa yaay te def na ko. Baye Sall def na ko lam lam waxaan def na ko léegi nag ñun liñ bëgg buñ sa yeggee sa bis ba nañu yut kaar yu doy man lu ma ci mën a taxaw man dinaa ko ci taxaw bu soobee yàlla lépp loo taxawaay boo xamante ne buñ buñ ci taxawee Ablaye am ci ndam bu soobee yàlla ñun dinañ ko def ndax ndax ndax liñ waxante woon ak moom lii lii mu commencé bu continuer bu soobee yàlla ñun moom la ñu continuer ñun luñ ko war mukk ci àddina ndax ndax doom ju doom la ñu jur ko ndax aw jàmbur fi daan ñëw di nu nax léegi nag sunu doom ñëw fi ñu waxantee moom la lañ waxante woon ak moom mu jëf ko kon nag moom it li mu bëgg di nañ ko ko defal bu soobe yàlla ko am sa carte di nga ko andi te ku ko andi képp koo xamante ne andi nga ko dinaa ne ko na nga dem ci Ablaye ci Ablaye Sylla bu boobaa na ngeen ñu yót ay oto kenn ku ne foo war a sànnee na nga ko sànneel na nga sànneel moom mi nga xam ne mooy ab Ablaye ndax lii ngeen nu defal kat sedd na sunum xol daa di wax daa di def du du ñu bëree ko man am na si ñoom xam ne dañ lay dik di la dig di la dig di la dig ba bis ba buñ la diggee ba bis ba nag say mbagg day damm duutoo sawar waaye moom lii mu tàmbalee ñun dañoo sawar xaat te gisagun dara barke sëñ Touba gis na ko jàppale bu baax a baax a baax.